ak ngeen dee de kay ngeen dee de waaw waaw Médina saison de couvre-feu waaw waaw gaa yaa ngi nii gaa yaa ngi nii kan lañ dëngu